balaa muy génn li si waroon def na informé na direction de la pharmacie informé na ordre des pharmaciens informé na aussi bailleuram pour ne ko maa dem waye man ma am priorité ci local bi ta lolu droit dafa am lu muy signifié foofu ta amna solo li tax mu def ko donc ñaxtu bi mu leen informé ba nopi li nga xam ne moo war si sunu métier bala kuy jëlee sa pharmacie si fi nga nekkoon di ko yóbbu feneen même bu doon ay maître rek la li ko war yëpp def na ko defar na dossier déposé na direction de la pharmacie ñu instruire ko ba ordre des pharmaciens ni waaw d'accord accord pour madame Mbodj jóge fii dem fee bu tra le temps travaux yi di pare loolu moo tax ñu ne direction de la euh, de la pharmacie et du médicament nga xam ne mooy suñu kilifa ci mbir mi dafa jalgati li tax mu jalgati mooy dafa jël tey pharmacie boobu nga xame ne dañ ni woon pharmacie dakaroise génnal bu ñu ñu dañuy defaraat immeuble bi jox ko beneen pharmacie muy pharmacie nation te teg si pharmacie li mu wax sax si transfert pharmacie waxul sax nga jël fu nit nekkoon joxe ko mais dafa ni booy transfert pharmacie war nga respecter distance bu toll na tant de mètres moom nag waxuma la sax respecter distance waaye dafa jël fu pharmacie dakaroise nekkoon ni dama fay teg tey pharmacie loolu muy li nga xamee ni tey jii ñun syndicat des pharmaciens privés nee nañu lu mënul nekk la parce que condition yi wara a tax ñu transfert pharmacie respecté wu ñu ngi fatali né grande pharmacie dakaroise 1953 la nekkoon ko maanaam def na ko légui mu toll xana ci juróom-ñaar fukki at daf ñuy jaaxal tey lu tax kilifa gi nga xam ni moo waroon def yoon tey moom mooy jalgati yoon mooy jël benn pharmacie bëgg ko fa teg

loolu mooy ñetti at jàpp ñetti at yu topp bi mu génnee mook IPRES ñu ngi eggale di waxtaan pour joxaat ko local bi li xew nag mooy 2019 ah IPRES xëy suba rek ni ma joxatuma la ko pharmacie nation laa koy def ñu jàpp nag ni IPRES amu si benn sañ-sañ pour def loolu amu ci benn sañ-sañ parce que moom mi fa nekkoon wax nañ ko léegi am fa presque dix ans juróom-ñaar fukki at pharmacie bu nekk fa di liggéey moom moom lañ ko war a joxaat ndax yoon moo ko ko may te yoon boobu wax nañ ko léegi mën nañ dem seeti acte uniforme vingt 127 surtout article 127 mais yenn article yëpp dina wane ni moom mii tey jii moo nekk ci dëgg euh, syndicat pharma yi ëmb pharmacien yi tey li muy wax mooy du ñu nangu benn bailleur maanaam képp ku mas a loué nit

tey nag syndicat des pharmaciens privés ak pharmaciens Sénégal taxaw nañu temm ni jalgati bu mel nii du jàll te li ñuy laaj mooy contrat bi nga xame ne IPRES def na ko mo moo pharmacie nation ñu annulé ko te loolu tamit docteur Aïcha ak avocat ñu ngi ciy liggéey tey sax fi ñuy wax ak yéen nii am nañu rendez-vous tribunal du commerce si mbir mom. donc nañu annulé contrat boobu mais aussi mom nañ ko defal contrat parce que lolu la yoon wax te loolu mooy droit wam amu ci nag aucune possibilité de négociation du ñu nangu négocier ci dara ci lolu lepp li nga xamee ne may nañu ko ñu mën ko def pour xeex dinañ ko def te ñu ngi inviter suñu mbokk pharmacien yi Sénégal yépp sañ nañu sax ne képp ki nga xamee tay ji jii dëgg moo la tax jog nga ñu japp ci pour que li jóge fi parce que bu rombé pharmacie bi problème de santé publique la parce que yàlla def na ne organiser nañ pharmacie de sorte que ñu ngi liggéey correctement fu nit ñi buñ soxlaa garab mën ko am mais lii ñuy seen mu commencé ñëw buy eggee bu buñ ko bàyyee mu wëy xëy na ëllëg dañu am problème pour am ay garab yu baax am ni ñu ko war a amee donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci déglu bi